yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér Mbacke Bala yàlla nga fi yàgg lool te wér yàlla nga fi yàgg te wér borom daaw yàlla nga fi yàgg lool te wér yàlla nga fi yàgg te wér dundal lu bare bare dundal lu bare bare Sir Odnas voilà ñu fekk la fii ci Sikori yi ci màggal gi yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci màggalu ko borom. Eh, sant rek sant sant bu baax sant maam Thierno Birahim borom borom daaru ah. ñu ah, eh, ñëwoon siyaare si sëñ bi xam ñëw ci màggal gi comme ñun ay Baye Fall lañ. waaw loolu rek moo ñu fi indi woon. Ah, mu mel ni am ngeen relation bu yaatu ak sëñ bi borom daaru euh, ci woyof gi nga xam ne am na ko. waaw boo bëggee dégg dëgg nag loolu moo fi indi maak sëñ bi ñu ngi doog gisante mooy doog a wàcc Sénégal laa ne sama jarbaat kii moom dama am cofeel ci moom te wax naa ko léegi bi ñu jàkkaarloowee ndax li ma gën a yitte ci moom mooy lu fi sëriñ Saliou bàyyi woon mooy ndaw ñi waaw te man ci loolu laay xeex xam nga des consciences moom dama bëgg àdduna bi xale yëpp yeewu xam ne président beeg xam nga ku mënti doon milliardaire beeg ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ba pare ñoom sax dafa am lu ñu leen tanee ñun parce que ñun ñoo dénkaane suñu alal ci loolu laa bëgg xale yi xam nga ñu yeewu ci bu baax xam nga te continuer ndigal li rek parce que xam naa ne ñu ci bari ci yéen gis ngeen bi ñu demee ci sëñ Muntaxa li ñu digal moo ñu yokk yar gi ak teggin waaw xam nga loolu laa leen di loolu laa leen di digal quoi yéen ndaw ñi ngeen xam ne bu ngeen déggee samay kàddu xawal lëndëm tuuti rek ñii jëflanteel ñoo amul teggin ci ñun mais du ñu ay nit yu ñàkk teggin dégg ngeen ah waaw ngeen góor góorlu bu baax xam yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ah